Il est hors de question qu'on se repose sur nos lauriers. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais laisser la parole à la bosse. Je ne suis la bosse de personne pour commencer. On est une équipe de deg. waa ma ne nan nga gisee suñu recrue bu bees bi biir le fait que mu nekk xale ba pare nekk sa patron ça te dérange pas. bu mu la xëpp xaalis mareetu de ba nga jox ko affaire bii eh téye ko de tànka takku la indilu la warugar fii bul ko ko jox. sëriñ bi la sant maa def nga lépp. topp naa ko benn par benn ba mu mat sëkk. kay ki dina daj lu mburu mës ta daj ci taal bi.